alhamdulilah eh, wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ñëw ak yéen rek ci li nga xam ne moom lañ defoon suñ laajub bés bi ginnaaw biñ jaajëfalee mbokk yi yëpp yëpp yëpp nag bàyyiwuñ kenn mboolem mbokk yi rek wàcc nañ wàcc ci ay xam-xam yu set yu leer laaj bi moo doon ndax ki nga xamante ne ab tijaan la dagan na ci moom mu roy ci koo xam ne dafa jàppoon tijaaniyatu ba pare bàyyi ko te ku jàpp tijaaniya ba pare bàyyi ko ndax dagan na mu roy ci kooku wala déet wala dagan na mu ci koo xam ne duhul tijaan waaye dafa diingat Cheikh na Ahmada Tijaani ba nga xam ko yow tijaan bi ndax daganna na nga roy ci ñaar ñooñu kenn ci ñoom mbokk yi indi nañ ci ay xalaat yu bëri ñu ngi ñu ngi koy rafetlu waaye boo delloo ci téere tarixa yi tuuti nga jàng dang fa fekk ñuy wax ne wa man maata ala bughdihi maata ala kufrin képp koo xamante ne faatu nga ci mbañ Seexu Tijaan mu ne yow faatu nga ci ak kéefër képp ku bañ Seexu Tijaan bu faatu rek ci kéefër ngay dee ñu laaj maam alaaji abdullahi ñas ne ko hal tijaanin hal lahu hal li tijaaniyin al iqtidaau bi man taraka tijaaniyata baada aqzihi iyaha aw man lam yaquzha walakinahu miman yunkiru alcheikh walaw balaqa mablaqa min alchariati dañu yor ñeen fukki laaj ak juróom mbenn yoo xam ne yëpp dañ koo laaj maam alaaji abdullahi lu jëm ci wàllu tarixa bi doxalin beeg yooyu bokk na ci laaj bi ma leen laajoon tey ñu nekkoon ndax dagan na ci nit ki mu roy ci ku jàppoon tarixa bu bàyyi ko wala koo xam ne jàppul tarixa waaye dafa dingat Amada Tijaani fa ajaaba bi annahu laa yajuusu lahu an yaqtadi bihima wa ama man lam yaxuzi tariqa wa lam yankur walam yakun mubqidan aw munkiran li cheikhi wal iqtidaau bi zalika arrajuli jaizun in ittasafa bi sifaati l imamiyati lii mooy tontu bi maa bañ ko laajee wax ji dane bu fekkee ki nga xam ni dafa jàpp tarixa bi ba ci digg mu bàyyi mu ne kooku du dagan ci tijaan bi nga xam ne mu ngi yor wér du tijaan mu roy ci moom julli boo royee ci moom julli sa julli du wér lu tax ndax kooku dafay fit ci coloré kooku bokkul ci am coloré ndax ci tijaan kenn du ko jàpp di ko bàyyi ci sa dund bi kon nag boo coloré ante ne buñ la ko joxee dootoo ko bàyyi ba keroog ngay dee nga jàpp ko ba ci digg nga bàyyi ko su boobaa yow da ngay dugg ci ñooñu yonante bi waxoon ne ayatul munafiqi salaasa isa waada aqlafa loo diggante ak ñi nga wuute ko kooku kon roy ci gannaawam tijaan bu roy ci gannaawam sa julli du wér ko kenn du roy ci moom beneen bi mu ne ki nga xam ne du tijaan waaye nag dafa bañ seexu tijaan ba nga xam ko yow tijaan bi boo royee ci gannaawam su boobaa doo am julli lii dama alaaji woon mu ne waaye nag ki nga xamante ne moom duwul tijaan waaye nag bañul seexu tijaan weddiwul ko te mboolem melokaanu imaamatu daje na ci moom mu ne kooku de nga roy ci moom dagan na waaye ñaar ñee koo roy ci ñoom yow tijaan bi su boobaa yi tamit sa julli daganut loola ma alaaji Abdoulaye Niass tontu woon lii firndeel bi mooy Cheikh Ibrahim dafa waxoon ne di mahdi li wa ridwaani usissa bi sunnati wal furqaani kon nga déggee nag ne tariqa tijaan tariqa la boo xamante ne ci sunna ak ci alquran lañ ko sos kon benn pàcc la rek ci diine bi te yonantu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam daf ko jox Seexna Ahmad Tijaan yaqazatan la manaaman daf ko ko jox ci gi xeewu ci zuhud ak nelaw ñu sart xante ay sart képp koo xam ne jàpp na ko am ay garanti yu seew tijaan ñaanoon yonant bi mu defal ko ci taalibe mi kon nga déggee ci ne ku jàpp tarixa bi bàyyiwaat ko kooku du mot imam ñi nga xam ne ay tijaan lañ ñu ne même bu jàngee bu jeexal téere sare ay yëpp du du la mën a jiite bu la jiite jiite bi du wér mbokk yi indi nañ ko nag ci biir dars bi lu leer mooy maanaam ki nga xamante ne doyut la ci diine ba nga xam ne boo royee ci gannaawam da ngay sikki sakka sa xel mi di ñaaw da nga koy teg ay bakkaar su boobaa sariya daf lay wax ne nga bañ julli ci gannaaw bu dee ci cadre sariya loolu mbokk yi ñëw nañ ci te leer na kooku motul imaam te mënoo julli ci gannaawam lii la ma Abdoulaye tontu woon ci laaj yooyu ñu ngi jaajëfal mbokk yi yépp ci niñ wàccee ci loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.